fii mooy Sénégal dëkk bi nga xamante ni dañuy gis ay étudiants yuy dox ci tali bi jugee Dakar jugee Thiès ba Diamniadio di dox ci weeru koor pour lan damaa bëgg a jàng defe naa ne loolu Sénégal rek la am pour lan damaa bëgg fu ma dëkk pour mën a jàngi loolu Sénégal rek la fii nga gis ay étudiants yoo xam ne dañuy ñëw ba fii dem ci rectorat pour sitting war a gis recteur bi wax ak moom mu daw ay responsabilités dem yoonam tey génn na rajo. di wax naan université bi garaawul université bu garaawul woon duñ jël ay salle télé ko di fa dëkkal ay trente wala cinquante jigéen kon université bi situation bi garaaw na bu garaawul woon duñ jël ay UFR ñu tëj seen i établissement pour élèves yi bañ a jàngi parce que nombre dafa pléthorique bu ñu demee bàyyi ne attanatuñu ay nombre alors que ñoom ñoo d' pour nombre yooyu ñëw foofu nga xam ne situation bi garaaw na donc li ñuy wax mooy autorité yëpp a ñëw mais lancé ñu ay lacrymogène autorité yi ñu ngi ñuy dégg lancé woon nañ ultimatum def point de presse demande nañ sit-in rectorat dox nañ kees ba jam ñaajo ku pare nag pour dox kees ba jam ñaajo weeru koor xamal ni pare na pour lu ne ah,